yàlla yeesal yërmande ci moom war ko waxtaanee mu nekkoon fii euh, ministre de l'éducation nationale euh, nekk itam ku ñu ràññee lool ci histoire u Sénégal ndax euh, bind bi ñuy bind histoire générale bu Sénégal moom moo jiite woon liggéey yi ñu am nag mbégte mu rëy dalal ci tey ko xam ne jarbaat la ci moom mu itam ku kenn dul présenté ci réew mi réew mi FM également honorable député Adji Mergane Kanouté di vice présidente groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar ñu ngi si ci njaboot gi euh, teg ko ci sa loxo ñeel professeur Iba Der Thiam mi ñuy waxtaanee tey. waa kay salaamaaleykum euh, soxna Fatou euh, maa ngi lay nuyu di nuyu également askanu Sénégal yi ñuy set déglu ci Rewmi FM di nangu sa njaal di wax na it mën naa la ko jaal yow it ndax ki fi jógee ku ne mën ko jaal jaal sa bopp ndax nitu askan wi la nitu Sénégal la kon donc maa ngi koy jaale Sénégal gi yëpp. alors euh, laaj bu njëkk bi mooy kan moo nekkoon professeur Iba Der am waaw ku nekkoon professeur Iba Der Thiam donc wax ci moom dafa yomb trop nag amaana wax ci moom euh, mën nga wax ci moom at du doo jeexal ci la nga bëgg a wax ci moom euh, parce que nit kaa toll noonu professeur Iba Der am moo am boobu doyoo xëy na nit ñi dañu gis li ñu woowee la dimension intellectuelle de l'homme hmm. mooy dañu gis professeur ca xam-xam ba gis professeur ci bëgg jàng bi gis professeur ci euh, ci yaatal ak mbaaxam ci ay connaissance mu koy partagé képp koo xam ne soxla nga ko amaana muy euh, Sénégal bi ak euh, mondialement ñëpp xam nañ ko ci loolu muy dimension intellectuelle man bu may wax ci professeur damay indi dimension bi nga xam ne mooy côté humain bi nit ki ci boppam euh, nit ki nga xam ne dafa simi yére yére ay diplôme teg ko fële euh, génne côté intellectuel bi teg ko fële euh, ci taxawaay bi mu taxaw ci wetu askan wi damay faral di wax ne koo dëkkal fu ko at ci kër kooku wax nga mën a wax ci moom fu ko at du fu ko fan fu ko at du fu ko weer kon nag li ma gën a njëkk gën a marqué ci professeur Ibrahima Thiam mm-hmm. parce que li ma marqué du benn du ñaar du ñett mm-hmm. dinaa ci ñëw mais la ma ca gën a marqué mm-hmm. mooy diine gi la ma ca gën a marqué mooy jaamu yàlla gi muy def muy koo xam ne mën na oor année bi yépp ah muy koo xam ne euh, si jaadaam lam cay toog moo ëpp la may toog ci kaw lal muy koo xam ne bu ko fekkee Sénégal julli fajar bu jotee day wàcc ñëw ci suuf fekk ñu fa ñun njabootam jiite ñu julli ba fi mu nekk ni ñun ñi fajar soxlawuñu horloge dañuy yeewu te du am horloge. ko tàmmal daf ñu ko tàmmal. tey damay sant yàlla ndax. lu bëri xam naa ko ginnaaw samay waajoor si diine waaye moom amalum yokk ci loolu muy voile bi may sol tey parce que dañu dëkk ak moom bu koor jotee mi nañu kat dama bëgg bu koor jotee weex bi yëpp ngeen koy seen bopp bi pour moo nekkoon lom du forcé ket dara mu koy jaral man ak sama cousine bu newoon ci kër gi muy ngóone bu demee jënd ñaari kol ku ne ñaari kol jox ñu yenn nañu dinañ ko awalante ba koor gi jeex ñu koy def pendant ñeent koor bu dee juumu man ñu koy def bu koor gi jeexee ñu dindi suñu fulaar yi teg fële ba benn koor jot ma teg sama fulaar fële génn di dem sama bopp di métti ma duggaat ci biir kër gi jël sama kol kolwaat génn sama bopp sedd muy kéemaanu yàlla mm. boobu laa gëj a dindi fulaar sama bopp ba tey kon kooku yaakaar naa ne euh, kenn amul fayam mu am leneen lu ma marqué ci professeur muy taalibe bi taalibe bi mu doon ak dëddu àdduna bi mu dëddu àdduna kër ga ñu doon yeewoo muy gardien bi muy jànq bi liggéey ci kër gi muy secrétaire am mu ñun njabootam bu añ jotee ñun ñëpp ci suuf ak moom mu toog bokk ñu benn bool non lu bariwul ci yenn kilifa yi ci ay kilifa. te mën naa ne ci moom laa ko gis mu gardien bi dugal loxo booy bi dugal loxo jànq bi ci dugal lekk loxo ñu jabaa ñu dugal loxo moom mu dugal loxo ba sax duñu tegal ñuy lekk kon bëriwut lu jafe ngi noonu muy koo xam ne tey leneen lu ma marqué ci moom tamit tey ñun ñàkk nañu de mais xam nga kan moo ñàkk. famille yi nga xam ne tey muy jullit beeg famille catholique bi chaque weer bu def ay enveloppe di leen jàppale ci dund amaana woon jàppale également ci faj faju te duñu benn famille du ñaar famille du ñett famille ay famille lañu teewul dëgg boo doon fekkoon ñu toog sa yaram day daw parce que ñoom xam ne ñoom ñàkk nañu ñoom ñoo gën a ñàkk ñëpp kon loolu mu koy def ci discrétion ci sutura nag parce que def bi ci ëpp solo mooy ba ngay def ci sutura di kenn yëgul noonu la doon defee muy koo xam ne tamit ku bëgg famille pour moom la famille passe avant tout bu ma ne la famille nag waxuma li xew léegi de papa yaay doom déedéet la famille au sens large du terme day xëcc ay jaxbaatam di xëcc ay sëram di xëcc ay sëtam di xëcc ay doomu ndeyam ñëpp ci këram. ñëpp ci këram boo fa demoon doom yi ko yàlla may muy awa caam ak kadeex caam nekkuñ fa kii dafa teel a sëy dem kii nekk Europe ñun dong ñoo ne ci kër gi. ba tey jii boo fa demee damay fekk ay jarbaatam ay sëtam ak ñoo xam ne ñoo liggéey ci moom sax ñoo nekkaat ci moom am jëkkër dim sëy yi di ñëwaat ñëwaat si kër gi ba dee ñooñu ngay fekk ci këram te Iba Der liy wane ne moom dafa dëdd woon àdduna mën naa ne benn kër la ko yàlla may ndax xam ne kat kër dëgg mooy fa ngay tëdd fa mu nekk tey musu sa xëccoo tabax ay étage amul sax kër étage bu tabax. surtout léegi nga xam ne coowal suuf foo turne dégg ci kilifa yu bari. mus ta dugg ci loolu fa mu dëkk mus da koo mos a doy mooy këram gi nekk si da koo mos a doy leneen lu mu am. da koy jox askan wi toog tey bu tabaxul étage ña mu jàppale la bu tabaxul ay immeuble tamit ay famille lañu ay famille bu na famille large laay wax. Mhm. moo ñi bokk ak moom ak ña bokk ak ay wëllëre yaayam tamit ak ay wëllëreem moom ay dëkkandooyam ak ña ko doon jàppale démb ak barki démb ak sénégalais yi nga xam ne tey jii dañu nekk ci ay jafe-jafe donc kooku mooy professeur Iba Der Thiam. kooku mooy professeur Iba Der Thiam ci côté nit gi euh, moom moo la ci gën a marqué effectivement ni nga ko waxee mais euh, ñu bëri ci askan wi tey euh, bu ñu ko xamee côté intellectuel bi la ñu ko xamee professeur ci bëgg jàng professeur ci diplome yu bëri yi ak itam koo xam ni histoire du Sénégal daf ko mës a ñor aspect boobu ci professeur Iba Der Thiam boo ñu ci mënee ñëwal. xam nga le professeur Iba Der Thiam dafa rester ce qu'on appelle un éternel étudiant. jàng musul bàyyi jàng musul bàyyi jàng heure bu xëyee ba toog ci salon boobu ma ngay jàng moo tax bi président Macky Sall jëlee li nga xam ne mooy université Thiès tuddee ko ko am ko ne su ma le professeur Mamoussé euh, jël nañ temple du savoir mooy fu ñu jàngalee xam-xam mm-hmm. duppee ko koo xam ne dafa am xam-xam da bëgg xam-xam te foo ko fekk mu ngi jàng kon tey professeur Iba Der yaakaar naa ne étudiants nga xam ne tey mu ñu ne Thiès ñu nekk Dakar Saint-Louis fépp Sénégal doy na modèle doy na référence wan na yoon bi xale yi gën a yoon bi lenn la mooy ut xam-xam xam-xam doy yonent bi daan wax naan dangay dem ba Chine sax uti xam-xam uti ko fa donc moom foo ko fekkee mu ngi doon jàng te étudiants yi mel noonu la ñu soxla fi mu nekk dimension boobu te ko tey boo xoolee suñuy étudiants ak suñuy élèves yaakaar naa ne am na quelques lacunes yu am li ko waral mooy gëstu bi moo gëstu bi moo des buñ ne étudians mooy da ngay gëstu di jàngal sa bopp kon nag yaakaar naa ne bu ñu dellusiwaatee ci Iba bëgg a wu moom ci jaar-jaaram mooy parcours académique am buñ ko bëggee def euh, xale boo ko ci def gëm naa ne yaakaar naa ne di nga nekk royukaayu sa dëkk dinga am loo mën a njëriñee askan wi histoire générale du Sénégal nag musul yendal musul fanaanal bu ma euh, wax bu ma sa sañee bu ma sa sañoon dinaa ne li ko gën a euh, fragile surtout santé bi bokk na ci. liggéey bi waaw parce liggéey bi da ko jëloon à cœur. du matin au soir. mu ci histoire générale du Sénégal te ñëpp xamoon nañ ne euh, nekkoon na âge bu xaw a avancé léegi ndax ku am quatre-vingts yu tegal nekkatoo xale mais nag le sens du devoir accompli daf ko ñëwoon dafa nekk koo xam ne loo ko sas dina def ba yow ba wis la taxoon nga jox ko du foye liggéey. lu du caaxaane liggéey et puis il est entier dans tout ce qu'il fait il est entier dans ses relations humaines mais également il est entier si liggéey boo ko jox mu mu jëm ci intérêt Sénégal nañ gis sa ku xamu dañ naan professeur Iba Der euh, moom euh, dañ koy dañ fa am ñu ko doon yàgg di nax damay dégg ñuy wax loolu. <laughs> Euh, kenn nax ci ko côté. Euh, xam nga damay dégg ñu ne wax naan waaw professeur Iba Der Thiam moom vraiment lu ko waaye wax mu gëm ko parce que c'est une personne boo xam ne dafa comme ni wax dafa entière euh, ni koo xam ne xolam euh, moo koy tooñ si lu bari parce que dafay jàppe nit comme boppam muy koo xam ne am na fët fët nag mais bëggul ko mere damay fàttali ko suma tante ma Touré dañoo nekk ci kër gi parce que sama tonton mosul bëgg ay dem ay baal yi façon bu génn ay ànd ay copine ak yooyu boo ko tàggoo mu bañ ñu toog xaw a fas suñu kanam boobu étudiante lañu tot adolescence la woon bu ko defee bu gisee mu ñu mere ko du am jàmm ci kër gi parce que bu ko mere daf ñuy neexal rek boo ko xamee mel la diw kaay ah defal ma defal ma di xool sa kanam ndax yow yaa ngi mer ba tey voilà bu ko defee sama tante ne waaye jënd jaaxal ngeen ma suma professeur bi ngeen jàpp di ko tongu ci kër gi nii ah ba mu nekk nii fi mu nekk amul jàmm <laughs> pour dire que xol bi dafa rafetoon xol dafa rafetoon macha allah euh, donc daal vraiment ñàkk nañ nag ñàkk nañ ko am euh, jàmbaar daanu na. jàmbaar ci ci côté intellectuel. jàmbar également ci côté social daanu na te gëm nañu ne fa mu jëm incha allah dina ko gënal fi mu jógee. yàlla na ko yàlla def alors wax nga ne histoire générale du Sénégal bokk na ci li fragiliser son thème ndax ni mu jëlee woon liggéey bi liggéey boobu si ku nekk xam na ne am na coow lu ci toppoon ku nekk di ñaxtu euh, ñi naan fii dafam am erreur feneen dafam am erreur naka la dundee loolu euh, ci nit ki nga xam ak ni mu bañee ku am lu ko naq di mu jógee ci moom ni nga ko waxee. gis nga nag daf ko dund avec sérénité amaana ñun ñi tax tafu ci moom ñoo doon sax mer. ñu sax ñu doon mer des fois nga ma réseaux sociaux yi ma ne fa di représenté lu ne wax nañ ko fi. waaw ma lay président indi ay président yooyu mais moom il a toujours gardé sa sérénité te un historien xam na ne histoire mënoo ko bind te ànd ànd histoire histoire doo ko bind te ànd ak coow mais il a eu à rencontrer képp famille famille religieuse boo xam ne rek yaakaar nga ne moom yow dañ la léser wala ñu ko bindee du noonu. dafa la dafa ñëw convoqué la ngeen ñëw toog def délégation ku ne indi ay documents yam mu jël intégré xam histoire général boo koy bind doo ci bind loo xam ne nag xanaa amut parce que ce n'est pas une épopée histoire la ñu wax c'est la réalité li ñu war a def léegi nag képp ku ñëw indi vraiment wane ne lii sa maam defoon na lii lii la demee mais loolu yaakaar naa ne moo tax coow bi gaaw fay sax parce que avec diplomatie avec tact et sérénité parce que moom buggul loxkenn parce que xam na tamit nag mm, xamul lépp am na xam-xam bu bari macha allah waaye mënut a xam lépp yàlla rek moo am lépp moo xam lépp moo tax mu defoon ouverture boobu alal ñëpp loxo famille religieuse boo xam ne rek gis nga ne yow euh, yaakaar nga ne euh, li li ñu bind ci histoire générale bi am na yu ci manqué mu oo la nga ñëw ngeen toog waxtaan loolu vraiment def na ko ñu rafetlu ko ndax loolu mooy wane la dimension de l'homme waaw parce que amul orgueil amul orgueil il n'est pas suffisant war na ne war na ne man nit kese laa nit kese laa donc euh, damay juum wala damay également ñàkk tamit euh, yoo xam ne tamit mën na ko échapper parce que histoire générale du moom kese c'est une équipe lépp lu ñuy tënk c'est pas le professeur rek c'est une équipe mais nag mooy la personne morale kon bu ñu attaqué moom la ñu attaqué moo tax mu nangu ko lool nag vraiment jàkkaarloog ñoom euh, de façon sereine ba nga xam ne euh, lu bëri mu yëkkati ko daal équivoque yu bëri yëkkati ko ba coow bi daal di daal di fay. daal di fay d'accord léegi nag ñu ñëw ci professeur Iba Der Thiam homme politique bi euh, nit ku doon yëngu ci wàllu politique la amoon bëgg-bëgg ndax nekkoon na fi candidat à l'élection présidentielle kan mooy l'homme politique Iba Der Thiam. waaw l'homme politique nag di ba deer politique am du yombutoon xam nga tax yombutoon parce que du politicien. waaw dinaa ci ñëw ndax ni mu daan defee politique. ak tay ni politique mel. waaw homme politique moom c'est un homme politique mais pas un homme politicien politique da ko tegoon ci éthique teg ko ci conviction teg ko ci ay principe teg ko ci ragal yàlla xam nga di di bu mag nag. man ma dëkk këram moom mu jiite CAP 21 man ma nekk opposition nekk assise national nekk ci M23 di mu may jox may añ reer ndekki musuma oo <laughs> ne ma bàyyi fa nga nekk ñëwal fii ma nekk kon yaakaar naan homme politique bu tax ñuy wax bu démocrate ah boo gisee Iba Der ne mu ngi nii waaw ah, côté boobu marqué na ma vraiment c'est un un démocrate la ba pare tamit lépp loo xam ne am na ko ci poste yu mës a occupé euh, da koy jël ñëw àndal ñëpp yaakaar naa bokk na ko ak ñoom même au delà sax ñoo xam ne sax ànd ñu woon moom mu bokk ak ñoom parce que moom politique am c'était servir la population et non sa servir donc lépp lu ma amoon da ko doon delloo askan bi donc moom noonu la politiquee euh, wax dëgg véridique teg lépp ci dëgg euh, ku mel noonu Euh, yaakaar naa ne politique moomu loolu bu ma nee amatul Sénégal sax mais jafe na léegi. jafe na donc loolu laa mën a wax daal ci ci politique yi la professeur Iba Der Thiam muy politique boo xam ne bu sen bu def indi fii la politique autrement te loolu tamit Sénégalais yëpp gëm naa ni rafetlu woon nañ taxawaay politique. alors moom euh, ban yéene la amoon ci Sénégal ndax ku dem ba nekk euh, candidat à une élection présidentielle mooy am nga foo euh, gis réew mi mu toll fa nga am foo ko bëgg a yóbbu ak itam doxin woo bëgg xëy na réew mi doxee ko lana nekkoon gis-gisam vision wam ak yéeneem ci Sénégal. yéeneem Sénégal lenn rek la woon mooy servir le Sénégal liggéeyal Sénégal dévelop Sénégal teg ko ci émergence. comme ni ko président Macky Sall la defee loolu moo nekkoon yéeneem ci Sénégal amaana nag tem na présidentiel ah gañewul yàlla mooy bind ku nekk la nga wax a am bind na ko pare yàllaa waxoon du nekk président de la république nekk ko waaye am na taxawaayu président de la république ndax président bu ñëw Sénégal bëgg ko am sa wet xëy na vision bi mu amoon moom tamit ambition mu amoon pour Sénégal pour defar Sénégal ànd nag président Abdoulaye Wade ndax le président Abdoulaye Wade lire ngeen li nga xam ne mooy témoignage am mu ko doon ooye mon professeur kon amaana la mu mbëbatoon la mu rafet yi mu liggéeyoon pour Sénégal am na fu mu ko fu mu ko fu mu ko versé foo xam ne ñooñu ñu ngi ko doon déroulé kon tey jii euh, il est comptable également des réalisations yi nga xam ne am na ci ci euh, magistère la président Abdoulaye Wade le président Macky Sall également comme mu doon déglu la di taataan xalaatam aussi kon nag euh, service sa réew du rek da ngay nekk ci station boo xam ne euh, présidentielle pour def ko mën nga ba a nekk ci station boobu noonu mais yaa ngi ci biir ci sa générosité di partager say xel ak say xalaat parce que ñëpp xam nañu ne lenn moo ñor moo ko ñor ñor ñi nga xam ne ñoo fi toog muy Sénégal. justement yaa ngi koy wax sànq ni muy politiquer wute na ak yenn politique yi euh, d'abord ñu ñëw ci rapport am ak homme politique yi euh, dañuy faral di gis ñenn ñi xëy na bu ñuy ànd ak ku ñëw ñu ànd ak yow dafa am fu ñu koy teg gis nañu également wax nga ko ku ñëw danga koy bëgg am sa wet donc dafa doon ànd ak ñëpp mais euh, naka la doon jëflante ak homme politique yi ñu ci bari moo leen mag xëy na jiitu leen ci wàll wi mais seen rapport yi naka la doon demee ak lu la loon rapport de générosité rek la ak tamit de de partage d'expérience ak tamit di leen gunge bu ngeen seetloo moment bi ñuy euh, CDP GAB gi dem ay ministre dugg ci gouvernement Abdoulaye Wade moom duggul dugg na Thierno Lo bu dee nekkee ministre c'est parce que c'est sur proposition du professeur Iba Der Thiam le professeur Mamoussa Diagne bu nekkee ministre sur proposition du professeur Iba Der Thiam kon yu mel noonu. ndax tax bëggul woon dugg. parce que euh, moom gëmoon na ne servir sa dëkk sa réew du rek ci nga ne ci gouvernement ñu ne kii titre titre titre bi la sol mën nga servir sa réew mën nga indi sa contribution sa participation tout en accompagnant aussi bien le gouvernement que le président de la république moom mooy humilité bi may wax ci moom xëccoowul dara. et ça je pense que même sa un jour le professeur kii le président Abdoulaye Wade mos na ko wax dégg naa ne <laughs> Iba Der bëggul dara oui Iba Der bëggul dara boobu mu wax parce que daf ko yéem daf ko yéem politique boo jël vraiment di ko def def ay proposition mu koy jox ñeneen di toog te ñu nekk ci jamono yi xëccoo xëccoo ku nekk di xëccoo mais c'est ça da ko yéem moom c'était ça l'homme moom xëccoowutoon dara moom dafa gëmoon ne fii jaar-jaar la passage la ka la ñu war a liggéey mooy fa la ñu jëm foo mu tëdd tay moom loolu doon liggéeyal te baax loolu mooy lépp solo donc il n'a jamais été un politicien il a été un politique au service de la nation. sa dugg ci politique moom daf ci am influence. xam nga man dama d'abord dama subir la politique dama dëkk ci kër professeur Iba Der am nga fa dëkk bi ngay am ban âge 94 laa fa dëkk. ba ma fay dëkk ay 20 ans laa am. ñaar ko at. ma jógee am bac voilà ma jugee Kaolack am baccalauréat sama papa sama yaay indi ma këram ma dëkk foofu pour mën a fa jàng parce que fii yaakaar naa ne mooy sama nijaay. fépp foo war a mën a dëkk foofu laa war a dëkk. te moom il a jamais voulu également ku ñu dëkk ci ay euh, cité universitaire yi. Mm. ci jigéen donc loolu euh, li mu bëggoon toujours mooy comme naa dafa bëgg fa famille. Mm. que ku am bac rek moom da ñëw këram. muy jigéen muy góor rawatina jigéen ñi ñun nag ba ñu nekk fa nag vraiment dans d'excellentes conditions da ngay foog na sax suñ ko papa suñ ko yaay la nekk xam nga loolu jafe na. nga dem kër kër nijaay wala kër càmmi nekk fa yenn conditions yi jafe na léegi ci àdduna bi donc ma subir la politique mooy demal na ci kër gi politique gu ma de. Mm-hmm. mosuma am carte CDP garab gi maa ngi woon ci biir kër gi. ñu fay réunion guddi ak bëccëg. ñoom président Ablaye Wade moom Lamine Diallo ay Decroix ay Landing moom la président Idriss Seck le président Idriss Seck moom chaque takkusaan dafay quitte réunion bi salon bi sama néeg moo taqaloog salon bi mu fëgg sama néeg hmm. moo tëjee mi ne ma aji almasidia dama julli Idriss Seck président Idriss Seck tey ji l' actuel président du conseil économique social et environnemental hmm. moo tax boo déggee ñu ne Euh, day téye kaamil nii rek day. trompé di farce di trompé. mais non xam nga man boobu boobu toll toll moom boobu fi mu toll nii tollu fi boobu man étudiante laa may xale na ci kër gi politique ma moo tax moom mën naa ko seedeel loolu. diine bi bi man mën naa ko seedeel. da doon fëgg sama néeg xam naa fàttewu ko xëy na man sax xàmmeetuma. Hmm. il était tellement frêle. tuuti ba bëgg dee xëy na sax mënut a def rapprochement entre aji mbergaan kanute bii muy dégg léegi. aji ba mu daan voilà <laughs> mënu ko sax def rapprochement bi. da doon ñëw fëgg ba ma jël sa jaar bi sa maa koy lalal mu taxaw julli. mën di servir ci biir salon bi ñuy naan ay ndox ak ñoom seen xam nga loolu yàgg na. kon dama subir la politique mais taxul ma politique. mais nag am na influence pour man ci sama politique dugg politique. parce que defuma ko woon mais dund naa ko. gis naa seen réunion muy guddi loolu gis naa ñuy wax des fois muy tàng ak tamit euh, di lire ay journaux xëy na sama tonton télévision moom bokk na suñu affaire nanguwutuñu seen télévision ah ndax film ya ndax yooyu moo tax bëggutoon yooyu mais journaux moom saa bu xëyee di koy jënd lépp lay jënd tous les journaux bu liiree jox ñu ñu liir ça également bokk na peut-être lu ma forger benn caractère boo xam ne ma mës a bëggu mbirum association. parce que au lycée déjà maa ngi woon ci foyer yi nekk ay club english diriger ay euh, association de jigéen genre yooyu c'est le j'étais un pur produit du mouvement associatif mais nag euh, boo subiree nekkee dans un environnement politique franchir euh, pas wu politique bi day yomb. également tamit je me rappelle lu ma révolté woon parce que je n'aime pas l'injustice l'injustice benn jour je pense campagne campagne bi c'est en 93 bu ma juumul non pas am na élection sama tonton euh, demoon ak candidat euh, maa ngi toog sama néeg ma dégg tonton Thierno Lo l'ancien ministre. Mhm. Thierno Lo dugg di wax naan oui bureau de vote yi dañoo jël bulletin hebdomadaire yi nekkuñ fa ma génn sama néeg da ko tonton lan la ma expliqué ma ne ko nañu ànd. boo politique gu ma de. Ah dugg si otoom on a fait le tour de bureaux de vote fu ma dem gis ñu jël euh, def ay yeneen kii bulletin de vote yi gis ma ba Ibadeer ma daw dem laajte ko ñëw tegaat j'ai fait si bureau de vote yi pratiquement Dakar yëpp parce que si ba ñu dëkk bu ñu Ibadeer benn voix la fa am man ma fa doon yeewoo sama tànn dafa yeewoo suñu jabaat dafa yeewoo. te yéen ngeen voté ko ñu ne voté ko. Mm. ñu ne bureau de vote bu Sicap Liberté 4. benn benn fois xam nga loolu c'est grave dafa yéeme donc c'est pour dire également que euh, sama dugg politique également yooyu yëpp tamit. nekk am na lu mu ci def am na lu ci def. Mhm. am lu ñu def également aussi mu nekk sunu sunu modèle dans la famille sunu famille moo ne ma sunu docteur bu mooy docteur nag c'est pas un docteur buy piqûraate mais docteur boo xamee la mooy soulager tous les tous les préoccupations de la famille les doléances de la famille donc ñu def ko ñu tamit suñu sunu référence def ko sunu sunu modèle di jàng ci moom di xool ci moom tey dinaa Adji Mbergane moom euh, dafa dafa am courage politique wala esprit libre la mais mu loolu sàccuma ko. mais parce que nit boo dëkkee moom gis nga involontairement mm-hmm. da ngay jël ci moom ay jikko yoo xam ne xamoon dafa am ko. ku la yar rek jox la ay jikko. ku la yar jox la ay jikko. Mm-hmm. te loolu moom c'est ñëpp ko xam dañoo nuroo dañoo nuroo fët fët aussi yu bëri daal vraiment euh, dama ko nuroog sama tonton c'est normal c'est biologie de un deuxièmement également euh, mu yar ma si biir këram nee naa nag jëkkër mu ma génne ci mu mayee ma si biir këram mm-hmm. bàyyi mu ma doog a génn këram d'accord kooku moo nekkoon professeur Iba Der Thiam alors politique bi tey niñ ko doon defee est-ce que daan na toog di ci am lu ci mettit ndax wuute na lool ak homme politique yu bari niñ ko fi waxee sànq xëccoo bi waxante lu ñaaw lii fàttalikuuma wala ma gis fu ñu ne Iba Der moo wax lii ñaaw na ñëpp daf nañ seen gémmiñ wala ñëpp taf nañ seen nopp tey ban gis-gis la amoon ci ni ñuy politiquer ci jamono ji ñu toll. xam nga bu defoon politique lu ñaaw bala mu wax ci lu ñaaw du génn àdduna pendant plus d'une semaine. ñuy wax ci moom te les témoignages sont unanimes mm-hmm. façon bi dafay politique dañ si war jàng lu bari politique du noonoo adversaire la ñu mais d'un moment bu jeexee jeex na mm-hmm. li ñuy wax ci campagne électorale duñ ko génne ci contexte mm-hmm. boo génne ci contex bi rek forcé euh, débat bi moom li mës a gëm ci politique mooy politique yu yoon yoonal jub kenn du fen amul fen boo xam ne politique kenn du fen politique waxoo sàcc politique la nga moom yemate la nga am de un jour toog nañu mu amoon je pense kër ga la woon sax mu recevoir je pense les jeunes autour d'un thé débat ma dégg ko muy wax naan ay xale ngeen yàlla daf leen may ngeen jàng ngeen jàng xëy na may ko ñeneen kon tey ñun yàlla may ñu jàng bu ñu toogee waxuñ ci lii xew dugaluñ suñu loxo ci defar Sénégal bi mm. bu ñu ko wujjee daañ ko layoo tamit ba mu koy wax maa ngi toog da doon militant de mm-hmm. mu nga fekk ma toog moom tey débat ak jeunes yi te loolu kon lu am solo la ko wax loolu phrase boobu rek ça résume l'intégrité de l'homme ça résume li nga xam ne moom la professeur doon politiquer bëggul njublang bëggul wuruj bëggul tricher bëggul fen moom bugg na lépp looy wax ci wàllum politique mu nekk ci dëgg xam naa sax amaana loolu moo waaw amaana sax loolu moo tax vraiment euh, politique bi euh, ñëpp xam ne ñaan presse euh, mënu politique parce que ñoo jàpp ne politique dafa ànd ak ay contre valeur moom mu jàpp ne politique ci ay valeur la war a tegu waaw kooku daal moo ne woon la professeur Iba Der jàmm ñu ñëw nag ci jikko yi ni ñu ko baaxoo saa yu ñuy waxtaanee nit ci dem ak tey euh, ñëw ci jikko yi nga xam ni benn par benn ndaw ñi buñ ci jàppee mën na nekk njariñ ci moom ndax loolooy solo su waxtaan wi nekkatu fi waaye am na lu mu fi bàyyi am na loo xam ne moom la doon doxee te bu sañoon xëy na ñi ko jege ak ñi ko jegewul ñëpp roy ci loolu euh, ngir xëy na mën a am taxawaay bi mu amoon ak aussi fin bi mu am ndax loo ci mën a wax itam mu jëm rafet na seede yi wax nga ko léegi macha allah yëpp benn la te jóge ci ñëpp nag euh, homme politique ku ko xam ak ku ko xamul. dafa am ñaari valeur yu am solo yoo xam ne da faral di wax mooy jom ak ngor jom doomu aadama dafa war a am jom jom dafa englobe yépp jom si taxawaay jom si da ngay liggéeyee jom sa rapport ak doomu aadama yi jom ci lañ la dénk nga wax koo sàmm wax koo yor ca anam mu gën a rafetee. da ko doon doxee moom professeur Ibrahima Dex Thiam di ko inculquer njabootam di ko inculquer képp ku dend ak moom bind ko sax da koo bind da koo xayma ngor moo nekk da ngay gore doylu loo am loo amut. xamal ne góor nga nga am jikko góor taxaw nga gore ci lépp ci àndandoo nga gore ci loo seq nit nga gore ci la nga yëngatu nga gore ci ak lépp loo xam ne rek ngor war na koo lal bu ko wàcc nga tegu ci ay valeurs yoo xam ne la yu nekkoon ci moom mu bëggoon ko inculquer également njabootam bu mën a njabootam c'est la famille mais également c'est la société et particulièrement la jeunesse tey jom boobu tey bu ma ko contextualiser indi ko ci wàllu immigration clandestine yaakaar naa xale yi war ñoo jàngalu ba ci jom boobu damay faral di wax ne Sénégal ñi fi gën a tekk génnuñu réew mi ah, ñu ngi fi toog booy lim les milliardaires yi sénégalais yi génnuñu réew mi ma dégg ku ne bu ma jéemut bu ma juumut mooy la capitaine bu Sedima. Abacar Ngom mais dafa déparé cent mille francs tey mu nekk ci à du tête d'une industrie buy employé presque mille sénégalais kon ñooñu ay modèle lañu ay référence nañu la ñuy bañ suñu dëkk. di ko nangu bitim réew buñ ko nangoo Sénégal toog liggéey boo jëlee sa lamu or jaay ko jox ko sa domp mu voyagé lam lu mu dee dee jar un million boo ko joxee mu liggéey ndax ak cinquante mille francs business départ na ci kon jom boobu xale yi il faut ñu am ko d'abord am jom mooy déjà sa bopp. te bañ a yàkkamti. am la patience parce que li nga war a am nga toog Sénégal di ko am. nga génn di nga ko am yàlla foo nekk mu fekk la fa jox la nga xam ne moom la jental ku nekk am lu la jental mm-hmm. donc kon jom boobu la xale yi war jël léegi approprié wu ko def ko seen bopp xam ne fenn yombut bitim réew gi ñuy dawal nii yombut de lañu fa nekkee man xam naa ko duma fa gëj lañ fay def tëdd ci gaar yi lañ fay def nekk tout effet li jaay ay brassé li ñu doon dàq ñu dawanteeg police yi yaakaar naa ne loolu bu ñu toogoon Sénégal am lu ëpp loolu. gis sa njaboot <laughs> donc loolu daal vraiment euh, euh, muy message bu bëgg tamit profité si occasion bi lancé ko vraiment ñi nga xam ne ñooy xale yi euh, pour ñu jël jom jooju def ko seen moomeel. jël ngox tamit def ko seen moomeel comme ni ko le professeur Iba Der vraiment mu newoon ay jikkoom moom yu rafet. boole ci également diine ji nga xam ne tey jii moom ne ci moom. xam nga diine bu feesee sa xol. Mhm. fees sa dënn dara du la saf. aspect boobu ñu bari xamuñu ko woon ci moom quand loolu nag moo ko caractérisé da professeur Iba Der diine jooju. Mhm. moo mooy mooy premier euh, kii yam euh, trait de caractère mooy critère mhm. mooy mooy caractère bu njëkk. mooy caractère am bu njëkk julli or moom laa mës a gisee nga ko mën a or un une année doo dog ah tant que mu ngi këram day or ngoon ba ngoon guddi ba guddi lay lekk heure dog dangay gis mu lekk professeur ba da ngay gis la muy toog ci natt de prière mu ëpp la muy tëdd ci kaw lalam la muy ci natt toog ci de prière am moo ëpp la muy toog ci fauteuil xam loolu jafe na nga jël ay sa jarbaat yoo dëkkal fexe ba ñu def ay voile te forcé woo leen brutalisé woo leen joxoo leen xaalis mais nga ànd ñu accompagner leen muy processus progressivement kenn ku ci nekk dem ba jël voile teg ci boppam loolu jàmbaar moo ko mën de. na patience ci côté boobu alors euh, dañuy wax ku dee rek bàyyi mbëbët kenn du jeexal àddina balaa ngay dem di nga am yoo xam ne ba nga ko def est-ce que amoon na ay projet yoo xam ne yéen xamoon ngeen ko muy lu ma bëggoon réaliser euh, pour Sénégal wala pour euh, loo xam ne daal am na trait ak ni réew miy doxee. projet yëpp nag bi ma ci gën a vraiment xam ne moom soxal na ko lool mooy daara yi. waaw parce que woon na. Euh, am na terrain yoo xam ne moom moo ko moomaloon boppam dafa jël terrain yi may ko ay nit ñoom daara ñu tabax ci ay école am na bu nekk fële benn institut bu nekk fële bu ma juumul bu du côté Zac Mbaaw côté yooyu euh, bi ñu ko inauguré sax yàggul ñu ko tuddee professeur Iba Der Thiam terrain bu mu am ci coopérative da ko maye da koy maye pour suba ñu dafa jàkka parce que am na boo xam ne jàkk boo xam ne jàkk lañ fa tabax toujours si banlieue ba la ba muy dem di ko inauguré ji ñun ñëpp ay jabaatam ñi dañoo jënd ay sijaada jënd ay moquette participer pour participer si loolu moom gis naa mu ci doon liggéey te dans la plus grande discrétion kenn mosu ko xam kenn mosu xam man maa ngi doon xaar nga wax ma yeneen projet ay université wala ay yu mel noonu daara yooyu moom mm. waa daara yi ñox na ko loolu ak jàkka yi loolu moom gis naa ca la nekkoon waaw di ci liggéey chaque weer moom lu mu ci def mu yokk loolu moom xam naa ne ay projet am la woon waaw mais projet université peut-être je sais pas mais man daal projet ma gis mu nekk ci ñu ànd ceeg moom buy dem au famille yam ñu gunge ko euh, yooyu daal moom vraiment marqué na ma waaw daara yeeg jàkka yi donc lu ko soxal la woon te ci projet boobu vraiment ma ngi ca woon aussi xanaa ñu jeexal honorable ak loo xam ni euh, peut-être nit ñi xamuñu ko ci professeur Iba Der Thiam wala nga lu ñu bëgg ñu xam ko ci moom wala lu ñu gën a téye euh, ci moom mi nga xam ne nekkatu fi waaye mën nañ ne jugu fi ndax turam des na fi li mu fi def itam mu ngi fi ba léegi. lu ñu gën a mën a téye ci professeur rek euh, mooy que ne moo ci ko li ma li ma fi lim yëpp. Mm. rawatina la bonte waaw quelqu'un de profondément bon nag. vraiment nekkul nit ku effacé aussi là. waaw waaw dafa moom dafa ëmb loon. professeur dafa dafa ëmb dafa modeste boo demoon këram di nga xam ne ko modeste la ndax tey kirisikat yi yaakaar naa ne këram bokk ni kër yu gën a modeste dara différencié wut moom këram yeneen kirisikat yi. xanaa ay temps bi foo di taxaw rek ngay xam ne fii mooy këram. mais eh, à part loolu. bu ñu fay taxaw yaakaar naa ne loolu dafa doon histoire générale. waaw boobu la mooy moment boobu coow li amoon. Euh, temps boobu rek ngay xamee ne fii mooy gër waaw effectivement parce que sinon moom vraiment amul ay euh, amul kër ga amul ay policiers yu koy gardé. protocole boo ñëwee gardien bu la dugalee rek moom ngay jàkkaarloo ci salon bi mu toog il amul benn protocole bu gis bu gis Iba Der amul protocole te vraiment. ku baax la daal li ma vraiment nitu yàlla la nitu yàlla la te nit ñi war nañ ci mën a inspiré wu ci moom. surtout politique yi. les politiques war a gën tey ci moom. politique yu bëgg xam nañ ko sax xam nañ Iba Der amaana euh, ñu bëri duñ bëgg peut-être doxal ni muy doxal doxalee parce que boo la nga bëgg a servir sa bopp. du leen arrangé. du leen arrangé mais boo la nga bëgg a servir Sénégal rek Sénégal tax laa jóg Sénégal ñor la. di nga jël royukaay ci professeur Iba Der Thiam man de sama politique moom ci ay tànkam laa ko wun laa bëgg a aw parce que si la ñu yar si la taataan tey bu ñu waxtaan ñu si loolu la ñuy wax ci ci war ci loolu que la dara jaral lenn ci politique. politique jaamu yàlla c'est comme ça qu'il disait c'est une autre façon de jaamu yàlla. ni ngay jullee di jaamu yàlla. politique da ngay da liggéey pour askan bi donc te loolu di seet yàlla te loolu ñëpp vraiment xamuñu ko woon. waaw kon daal vraiment di remercier également la président Macky Sall parce que nag feebaru feebaru sama nijaay bi da cee taxaw lu am solo euh, biñ ko téye euh, principal docteur bi général maam Thierno da ko fekk mu mu tukkee ci biir ci biir Sénégal bi mm-hmm. mais moom. moo woo sama nijaay xamal ko ne ko xam nga nu ma def ba yegg sa feebar bi ma ne ko ah ma ne ko c'est le président Macky Sall moo ma woo ne ma yaa ngi principal naa la taxaw sama nijaay ne ko Macky Sall moo baax pour de comment comment était mhm. geste bu ndaw nga koy defal da koy yëkkati sama tonton da ngay ñëw yëkkati jënd sa benn bitéelu ndox wala benn mbuusi fruit jox ko il appelle tous ses enfants ku ne mu woo diw ñëw na fi tey indi ma fruit kontaan xam nga nit bu bu yàlla may daraja ñu koy may d'habitude du bëri mm-hmm. donc lu ndaw faatu loo ko may da koy magal te fu mu toog dina ko wax fu mu toog dina wax yow li nga xam ne moom ko defal te lu mu am la de mm-hmm. mais da koy rafetlu mm-hmm. parce que nit ku baax la dëgg la lan nga dund ak moom loo xam ni doo ko fàtte euh, ilaa yow mi diine li nga dund ak moom bëri na parce que 10 ans wax nga ko sànq du fukki fan euh, du itam fukki weer mais ñàkkul ci moom loo xam ni moom dootoo ko fàtte mukk ci loo dund ak moom euh, sa nijaay Iba Der Thiam. lépp lu ma dund ak chaque jour boo paasee këram am na lu ma marqué mënu ma ne lii moo ma marqué parce lépp ma marqué. dafa ma marqué ci côté bu ne. daf ma marqué ci côté lislaam ci piété mu marqué ma ci côté humilité wax naa la ko kuy toog di bokk ay jànkaak ay booy a gardien lekk yombul mu marqué ma tamit ci la muy jàppalee famille yi sans xaaj ak seet xool na catholique nga xoolu na musulman nga loolu tamit marqué ma loolu mais li ma gën a marqué tamit ci professeur Iba Der mooy xool bu rafet bu mu am dinal bu ko ko mere bu ngeen bëgg dara mu tere ñu ko sax ñu tong ko ci kër gi dañ koy nuyu nag de mm-hmm. ak ah, dañuy fas suñu kanam waaw te bëggul fas kanam buggul loolu dafay jaxasoo day réer te muy koo xam ne nag sama maam man ajaratu njaay si ba ba Iba Der di am jabar ba am ay doomam da ko doon teg mu toog mu koy dóor ah waaw ko ko jur du sikki <laughs> ba mu am jabar laa la wax de ba am ay doom mu koy fekk biir këram fii mu jógee Kaolack. sama maam jógee Kaolack fekk ko Dakar gi mu nekk ci kanamu njabootam dóor ko. Ah, loolu de yéeme na. du branché ci mu toog lay topp yaay mu ne woon sax mu am yar lool nag macha allah mu am yar ndax fi mu jamono tey fi mu toll nii tey mhm. waxamaane bu nekk sa biir kër. saa fekkal di la dóor amatul de xam nga loolu lu rëy la moo tax may li ma marketing mu bëri na trop amaan histoire yaay bi sax fekkee ma ko ndax boobu juddu wu mais nag sama ñoom yaay ak sama ñoom tàntaak dañ ko doon nettali mu touché ma nag trop waaw muy lu ma touché parce que euh, lu raar la léegi si jamono ji ñu gis kon daal bu ma doon toog di wax fi si Iba Der y a am na yu bëri yoo xam ne am na boo xam ne tamit tamit marqué na ma trop xaw ma xaw ma lu xewati woon sa ànd ko daal amul lu xewoon sama tonton am lu ma wax ma mer amuloo dañ amoon axuma dañoon dem ay pique-nique mu yooyu rek bàyyiwu ma xam nga adolescence mu bind sama lettre nag ne ko naa damay ñibbi maa ngi lay remercier dugg na fii gis nga affaire daal kër gi mu ko fekk en pleine réunion ne foofu sa réunion boobu noonu dafa dagg réunion bi. da nga ko fekk jox ko lettre bi. non non am na ko doon dem ci réunion bi ma jox ko lettre bi. da ko daaj yi si pleine réunion bi liir ko génn si réunion bi woo ma téléphone. ni génn maa ngi yegsi noonu la ñëwee xam loolu ku bugg nit moo koy def. xam nga ku yëg nit ak ku oyof. Mm-hmm. mooy mel loolu. Ah, maamam gaañu na fekk conseil des ministres. yëpp a dee maamam. maama dafa gaañu parce que sama maamam boobu dana wax naan dafa dénk boppam Ibadeer mu gaañoo Kaffrine en plein conseil des ministres boobu mu ngi nekk ministre de l'éducation nationale ñu woo ko na ko sa maam gaañu na devant dégg naa ñu gouvernement yëpp toog ko la la mel je viens ma grand-mère ñëpp di xaxataay parce que pour ñoom Ibadeer waaw un <laughs> pour dire daal que ni mu ni mu familier woon. moo gën a considéré mu sax jubal directement Kaffrine. ndax ñun nag nous sommes originaires de Kaffrine. dañoo kaw Kaolack yaroo Kaolack màggee Kaolack mooy suñu origine Kaffrine la voilà. jërëjëf ci témoignage bi am na solo ñu bàyyi la rek nga tàggoo ci lu gàtt. waa kay Fatou maa ngi lay remercier bu baax nag di la sant di rafetlu également sa sa liggéey ndax yaa ngi liggéey lu am solo vraiment. Euh, di nuyu tamit euh, ñi nga bokkal euh, mi FM di nuyu tamit seen seen PDG Mboye Mbagnick bu baax donc di nuyu askanu Sénégal bi ñi ñu doon déglu di yaakaar ne li ñu fa wax lépp vraiment am na leen njëriñ dina tax ñu xam tuuti sax ci nga xam ne mooy professeur Iba Der Thiam waaw di leen jaal nag parce que nee naa nag ñun ñëppoo ñàkk ndax moom nitu Sénégal la donc ku ne mën ko jaal sa bopp donc ndaanaan daanu na waaye am nañ ci moom yaakaar que ne fa mu jëm incha allah bi yàlla na ko gënal fi mu jógee. amin jërëjëf honorable député Adji Mergane Kanouté moom la ñu doon dalal ci démb ak tey doon waxtaanee nag professeur Iba Der Thiam mi fi jóge yàggul dara dal di ko jaal Sénégal yëpp di ñaan yàlla fi mu jëm gënal ko fi mu jóge muy nag jarbaat ci professeur Iba Der Thiam dund ci këram euh, yaroo fa màggee fa ba mu may ko boroom kër mu génn fa kon moom jekk na lool ci wax ñu euh, ci professeur Iba Der Thiam te li mu fi wax itam yëpp yaakaar naa ne am na lu bari ci jàng ndax woon yoo xam euh, professeur Iba Der Thiam di ñaan itam li ñu fi wax yëpp mu doon njariñ ñu mën a roy ci jikkoom yooyu ndax bi mu génnee àdduna ku ne dégg na seede yi ak itam euh, ñëpp itam constaté nañu humilité ak euh, dund gi nga xam ne daal dund na ko muy dund gu teey dundu gu dal euh, professeur Iba Der Thiam kon ñu jeexal justement ak ay kàddoom dig leen daje beneen dimanche incha allah waxtaanee leneen ak keneen ci demb ak tey gërëm jaawo jàlloo mi ne woon ci machine bi Fatou Thiam Ngom la woon ci kàddu gi ñu yendoog jàmm xam nañ ñooy ñan ay jullit lañu am na loo xam ne nanguwuñu ko duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg par conséquent am na yoon woo xam ne kenn duñu fa jaaral waa doomu ndar yi li ñu tubaabe tubaabe yépp yépp yépp yépp yépp ak li fa France def yépp ci ay yiw ak ci ay droit ba 1830 mu jox leen le code civil français nañ ko appliquer aussi bien à Saint-Louis qu'à Gorée 1833 mu jox leen citoyenneté 1840 mu jox leen conseil général 1848 mu may leen député assemblée nationale ñu def élection ki ko gagné doon benn métis bu tudd Barthélemy Durand Valentin wëlbateku 1872 mu jox leen commune de plein exercice jox ko gore jox ko Saint-Louis wëlbateku en 1880 mu jox ko Rufisque 1887 mu jox ko dakaar tuddee leen ay citoyens français ñu am les mêmes droits que tubaab ba nga xam ne mu nga juddoo France te tubaab ba nga xam ne mu nga juddoo France moom du jullit amul droit am ñeenti jabar amul droit bu dee. ñu euh, jugé ko ci charia amul droit ñu donn ko ci charia mais ñun ñi nekkoon ñun ay citoyen français fii dem nañu ba bind lettre pour wax ne may nañ ñu bu ñu dee ñu ñu ñu ñu ñu nu mu tuddati doon doon bi ñu tëral ko ci charia tëral ci charia li nga xam ne mooy suñu ukkile suñu suñu suñu suñu suñu l'ensemble des valeurs yi nga xam ne moom la islam kile mariage donation testament divorce et cetera may nañ ñu ko pour ñu continuer rek di doon citoyen français c'est parce que dafa am lu ñu doon ut booba déjà suñuy maam bañ leen mayee autorisation pour ñu toog euh, euh, naja kile euh, abas abasini la ñu commencé di jàngal seen i doom ak di tabax di di di di construire seen i daara moo tax waxtu yi fa xam ne ci la fi lislaam dugg ak daara yi dugg fi kenn xamu ko ba tey ndax ñoom dañ daan dox dañ daan wax dañ daan bind suñu maam yi ba nga xamee ne yàlla def na ñu dal di dugg ci lislaam daan jóge fii ak seen tànk di dox ba màkk ko xam fii ni mu sore ak ku xam à cette époque bi ni mu meloon ak àll bi ni mu meloon waxuma sax li coupure de route mais li fi nekkoon ci ay gaynde ci ay segg ci ay euh, euh, éléphant ci ay caïman ci ay risques yoo xam ne kenn mun la ko wax suñu maam yi dañu ko daan braver daan dem màkka te bu ñu demee jënd fa ay téere waxtaan fa ak ay nit delsi soxna Rokhaya Gueye mi nga xam ne moo njëkk a dem ci jigéen màkka kii moo ko feeñal di professeur Khadim Mbacke mii nga xam ne moom la yàlla def saoudien yi wóolu ko ba autoriser ko pour une première fois nit ku ñuul dugg ci biir juma juma yu euh, Makka def fa conférence ay ulema yu am xam-xam ñëw fekkee si ko par conséquent suñu réew dafa am lu mu représenté te ci li nga xam ne moo ko téye moo ko jàpp ba tey jii fu ñu yegg tey ñu yegg fa bokk na ci daara yi ku baax Sénégal ku baax Sénégal rek sa cosaan ci daara jóge ku ñu fonk Sénégal sa cosaan ci daara la jóge ñi nga xam ne ñëpp tam joxe nañu seen deret pour que lislaam sampu Sénégal ñoom ñëpp ci ay daara la ñu jóge ñoom ñëpp